benn rek la ñu signé woon su Ablaye mu doon euh, ñaar kon GTI euh, mooy mooy mooy euh, Tobène Power ak tey Taïba Ndiaye parc éolien bi nekk tey ba njaay mais li ci des yëpp à partir de 2012 lañ ko siw yu tey signé am na yu Samuel signé Samuel ci boppam ba mu nekkee DG Sénélec moom moo signé GTI mooy toben Power bi nga xam ni 76 milliards lañ koy fay par an di fay location centrale boobu 18 milliards par an ministre ya jiitu woon ñoo ko signé kon tey jii euh, euh, ñooñu ñoo am une responsabilité moo tax su ma gisee ñu bokk ci prise de décision yooyu ñu jiital leen Senelec demee nii gis-gis bi des na donc sama rôle lay doon ma ne attention top management bi lii la fi def ñii ñoo doon top management bi kenn ci ñoom la ñu seppi def ko DG pour ñoom ñu xoolaat fan la ñuy orienter seen bale loolu mooy euh, suñu euh, euh, taxawaay léegi Ahmed Tchalik nag c'est vrai que sénégalais yi xamuñu ko mais man dama leen yàgg toppal kooku depuis ñu commencé teg West Africa Energy parce que moom Ahmed Tchalik ak euh, General Electric euh, benn euh, compagnie américaine ñoom ñooy partenaire technique wu West Africa Energy ci centrale boobu ñu taxawal biir Cap de Biche fas yéene produire 300 mégawatts pour jaay ko Senelec Ahmed Thialik dafa am benn holding bu tudd Thialik holding boo xam ne moom jël ay part ci investissement énergie moo ko gën a ñor ak agriculture ak tabax ay infrastructure te ñoom lu ñu lay defaral ñoom dañ la koy préfinancé parce que xam nga ñun suñu état yi amuñu xaalis bu ñu gisee ku leen ne ah li ngeen bëgg réaliser day mën nañ leen ko réaliser bu jëree quatre cent milliards ñun ñoo koy def te du ngeen ko fay léegi léegi ñoom ñu poser seen ay conditionnalité loolu dañ lay laxas buum mais fàttali rek ne président Macky Sall bi fi jóge mu ngi ñu fi bàyyil boru presque dix-sept mille milliards de français CFA teg suñu bët ay pont ak ay BRT ak ay stade ay infrastructures yoo xam ne boo xoolee ñi ko defar autopont yi matière moo ko defar ay français stade Ablaye Wade ay turc encore souvent ñoo ko defar li nekk jam Diamniadio li ci ëpp turc yeeg indien yi ñoo ko defar donc boo xool bor boobu li ko wund yëpp liñ ci mën a teg bët ci bor boobu yëpp boo xoolee ay doxandeem ñoo ko tabax léegi pratique yooyu nag la ñu war a dakkal parce que am na ay doomu Sénégal yoo xam ne mën nañu lool baarataal mën na defar tali CSE mën na defar tali am nañu ay architecte ay entrepreneur am nañu aussi ay sénégalais yoo xam ne mën nañu financer ay hôpitaux clé en main mën nañu financé ay stade ay infrastructure clé en main lebal ko état bi pendant dix ans ba noppi ñu am différé deux à trois ans balaa état di commencé fay te état bi bu lebee au côté de ces sénégalais là du fey ci euro du fay ci dollar dërëm bi du génn gaal gi parce que dette intérieur lay doon doon dette extérieure boo xam ne dañ lay wax entreprise tubaab yi nga koy jox ñu liggéey ko te yow doo ci am dara lépp day delluwaat donc xalaat boobu la ñu war a am loolu mooy solution bi maanaam ñu intérioriser la dette publique maanaam ñu sàkk ko ci wetu ay sénégalais yoo xam ne mën nañu am ñoom seen ay partenaires au développement ba réaliser ay infrastructures yoo xam ne du bokk ak forme partenariat wu ay Tchalik ay ay ay Cara Denis Remzi Cara mooy ki indi bateau courant yi wala Fouad Tosyali bi nga xam ni moo teg bët ci suñu feeru Sénégal oriental bi te Macky xawoon ko ko jox Atépa yooxu ñu teg ko ci suuf donc lii mooy euh, ci gàtt sa sa tontu su fekkee am naa lu ma ci fàtte nga jégal ma ko.

boobu léegi gis nañ tamit mm. affaire yi bougé wu te tamit am na benn kàddu boo xam ne tamit gis nañ kii di président Bassirou Diomaye Faye keroog ba mu jëloon taskatu xibaar yi wax na ko mu ne mm-hmm. maanaam dañu noonu toog automatiquement rek ndox bee courant bi yëpp yokk mm-hmm. léegi ndax ñuy wax jëmale si càmbaraat bi jëm si biiru contrat yi mm-hmm. ndax loolu tamit duñ boo leen koy dégg yéen en tant que télévision ndax da ngeen si am maanaam gëm-gëm ne courant dina de bu dee lii bien que lii mu ngi fi am. Hmm. Hmm. waaw fi nga fi nga daanelee rek laay tontu man de dogu naa ni courant dina wàññeeku deux mille vingt cinq fii Sénégal parce que lii dafay dakk te dañ koy dakkal lii bu dakkee courant dafay wàññeeku kooku muy benn ñaareel bi suñu gaz yaa ngi wax renégociation contrat renégociation contrat yi. pour ñu jot ci suñu gaz la parce que gaz bay jóge Saint-Louis euh, Matar Cissé ak euh, Mohamed Ould Vetta ministre Mauritanie jaay nañu totalité gaz boobu wax naa ko fi ça personne gaz boobu yëpp jaay nañ ko léegi renégociation bi mooy soit contrat boobu ñu xool ko parce que jaarul yoon mooy affaire Petro-Tim wala quota bi nga xam ni moom la ci Sénégal am ñu renégocier ko ba ñu am gaz boo xam ni day doxal centralu Sénélec yi parce que may fàttali rek ni centrale yi doxee fuel yëpp dañu lay con dañ leen concevoir pour ñu mën doxee également au gaz kon du soxla sax Senelec changer son parc de production dina mën a utiliser gaz bi comme combustible pour defar courant te courant bi dafay wàcc kooku muy benn ñaareel bi ñu ngi séntu gaz ci Kayar boo xam ne bokkuñu ko kenn ñu ngi séntu gaz ci euh, Sangomar donte bëriwul mais mën na alimenter Senelec te bokkuñu ko kenn donc loolu boo boolee facteur yooyu yëpp effectivement moo tax ma dogu ni ci biir 2025 bi incha allah courant day wàcc par force loolu dafay wàcc parce que intérêt yi yëpp boo gisee ñu leen di dénoncer pour ñu dindi ko la comme ça ñu fay le coût réel du kilowatt heure bi nga xam ne mu ngi ci document yi ma leen partagé ça varie entre vingt cinq et soixante onze francs le kilowatt heure ñu ñu koy jaay cent cinquante jëm kaw wala wala cent trente un loolu pour alimenter ay ay ay ay lobby dafa war a dafa war a dakk ay intérêt loolu dafa war a dakk donc est-ce que wax naa ci ak Euh, wax naa ceeg moom nii brièvement dama ko junj rek mais léegi man ñaari ñaari posture laa war a choisir benn man mën naa woo Birame Souleye Diop wax ak moom li ma leen di yónnee nii euh, am na ñenn ñu ma ko yónnee ñu jege ñu jege ñu jege président Bassirou Diomaye Faye am na ay magistrats yu ma ko yónnee mais man sama sama approche mooy au lieu ma yëkkati dossier yi dem ci Habib si ni ko lii ak lii moom mu dox ko damay fexe ñëpp xam ko ndax même bu ko Habib si lijjantiwul sax kilifa gi ni ko Habib Sy lijjanti lii wala mu wax ki nga xam ni moo war a lijjanti lii mu lijjanti lii wala corps de contrôle yi dem leen dugg fii ngeen saytu ko dem leen xool contrat sangam ak sangam ak sangam ak sangam léegi entre ñaari démarches yi ban moo ci gën a efficace parce que bi nga njëkk a wax day indi du ngeen ma dégg damay noppi. damay dem wax ak kilifa yi après yenn du ngeen xam lan moo tax courant euh, compteur yëpp di xonq ci immeuble yi boo du ngeen romb ay immeuble compteur yi nekk ci yëpp tàkk rouge. ah léegi loolu du ngeen ko comprendre léegi man su ma demee foofu est-ce que yéen dina leen jëriñ man dama jàpp ni li may def nii euh, mission la boo xam ne pour askan bi xam la parce que lépp askan bee ko moom kon waruñu warul doon lu ñuy xumtoo walla lu lu lu ñu war a séq ak autorité yi. autorité yi naam war nañu xam mais askan bi tam war nañu xam te Claire Vision wax dëgg yàlla gindi askan wi la sant le mouvement s'appelle Claire Vision gindi askan bi te bokk na ci suñu taxawaay la formation de l'opinion par l'information mais l'information juste l'information vraie mooy yii ñu teg seen loxo nii ngeen xam ni lu leer la c'est bon mmh. On euh,